assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokkum jullit indil naa la benn xadis bu am solo lool xadis bu am solo rawatina ci jamono jiinu toll nga xam ni noo ngi ci jamonoy koor xadis bi noo ngi ko jële ci salmaan alfarisi bayhaqi soloo na xadis bi ibnu xuzaymata soloo na xadis bi bokkum jullit nan la xadis bi tëddee salman alfarisi daf ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen wax ni nee na leen man fattara saaiman kaana magfiratan li dunubihi wa itqu raqabatihi min annaar nee na leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen wax ni koo xam ne fekk na mbokkum jullitam bu woor ba ngoon mu dogal ko ak kooram maanaam sa mbokkum jullit woor na ba ngoon nga jox ko lum dogee ak kooram ci la la yàlla wërsëgal nee na jëf joojee nga jëf mooy dogal sa mbokkum jullit kooram mooy doon sa njëggaluk bàkkaar waaye mooy doon sa goreel sawara ci jëf ji nga jëf kon sa mbokkum jullit a ngi nii woor na ba ngoon nga jël ci la la yàlla wërsëgal nga jox sa mbokk mii mu dog ak kooram ca jëf ja sun borom dana la ci jéggal say bàkkaar goreel la ca sawara allahu akbar muy lu rëy waaye jeexagul yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ca ni kee nga dogal ak kooram la mu am ci kooram yépp ci yool ci yërmande ci xéewal ci njëgal gu bàkkaar ci yiw yépp la mu ca am yow mi ko dogal ak kooram danga am lu ni toll te moom mee woor ak ak yoolam du ci wàññi dara maanaam suñu borom du wàññi ak yoolam di la jox waaye la mu am nam toll danga am lu ñu toll yow mi ko dogal ak kooram ci yaatu girmande sunu borom tabaraka wa taala bi mu waxee loolu nag saxaaba yi xam naa xeeb nañu jëf ji maanaam dogal sa mbokkum jullit koor ni mu yombee saxaaba yi ni ko yonentab yàlla bi ñun ñépp am nañ lu ñu dogalee suñuy bokk seen koor maanaam kenn ku nekk ci ñun ñii am na loo mën a jox sa mbokkum jullit mu dog ak kooram di yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen leeralal wane ni yàlla moom xoolut mu bari xoolut mu ndaw mu ni leen donte dangaa jël benn góoxub soow wala benn doomub tàndarma jox ko sa mbokkum jullit mu lekk ko maanaam mu naan ko xam nga góoxub soow suurul kenn waaye doomub tàndarma it suurul kenn waaye yonent bi mu ne nga yëkkati ko jox ko sa mbokkum jullit mu dog ak kooram am nga lu mel nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kon mu bari ak mu tuuti yépp la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yabare kon nga jël benn góoxub soow wala benn doomu tàndarma jox sa mbokkum jullit mu dog ak kooram am ngi li yonent bi wax waaye nag mu tegaat ca mu ni waaye nag su fekkee da ngaa jox sa mbokkum jullit mu lekk ba regg ci dog gi kon jox nga ko lu bari xëy na wa man ashbaa saaiman saqaahu llahu min xawdi shurbatan laa yadamu xatta yudxila aljanna nee na nag su fekkee da ko jox mu lekk ba suur kon xay na bari na nee na sunu borom dana la nandal ci sama déeg bii xam nga yowmal qiyaam am na benn marigot benn déeg boo xam ne meew la yonent bi la ko suñ borom leen nee na ku jox sa mbokkum jullit mu lekk ba suur ci koor yàlla dana la jox nga naan ci sama déeg bii te boo ci naanee dootoo maraat ba mukk ba keroog ngay dugg biir aljanna kon loolu mooy seede ni ki jox sa mbokkum jullit koor mu lekk ba regg ci dog yow mooma day da nga naan ci déegub kawsara ba ba noppi da nga tabbi aljanna loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko seede mbokkum jullit kon nu bàyyi ko xel mbokk mi lii mooy sama fàttalante ak yow tey muy lu mat a bàyyi xel lool di jëf ju tuuti waaye yiw wu mag mbokkum jullit looloo taxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu waxoon ak saxaaba ba ni ko laa taxqiranna min al maarufi shay'an nee na ko bul xeeb dara ci lu baax lu baax loo am lu mu tuut sa mbokkum jullit bul ko xeeb ndax suñu boroom dana la ko fay li ci leeral mooy su fekkoon dafa am koo xam ne dañu maa ngi dajale ay ay lekk pour yóbbul ko ñële woor nga xam ne ay néew ju doole lañ yow nag amoo lu bari nga am aw fukk nga jël fukk wa jox ko ko ni ko boole ko ci li ngay jox ñële woor loolu sunu borom tabaaraka wa taala day def ni dogal nga ab dëkkub lëmm lañ dajale bu doon ab dëkkub lëmm la sunu borom day bind ni dogal nga ab dëkkub lëmm tey ay jullit dogal nga ñaar fukki jullit kon sunu borom boo ko joxe fukk du wax ni fukk nga joxe fukk ngay am ñaar fukk nga joxe ñaar fukk ngay am déedéet boo participer fukk borom bi tabaaraka wa taala day bind dogal nga waa dëkk bépp wala dogal nga ay jullit ñu baree baree bari loolu nag ci yaatu yërmande sunu borom tabaaraka wa taala la bokk mbokk mi nanu ko bàyyi xel maak yow nu bokk ci yem yàlla na nu yàlla boole dimbalil boppam defal nu jàmm fi dinaw fil axira defal ko mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.